لكم شكرا لكم سنمك نباخ يفدان يردين وانديون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بوكي جليديني تي سيتان تي Islam TV ñi ngi leen di nuyu di leen wax asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. di leen tatagal ci suñ jataay bi nga xamante ne ñu ngi ko jaglee yarub lislaam yarub eh, lislaam nan la lislaam di yare te loolu nag ñu ngi koy jànge ci eh, njàngalem yonent bi sallallahu alayhi wa sallam eh, loole ñu tànn ca téere boo xamante ne nii eh, bu am solo la ci wàllu yar ndax dajale na eh, lu bare bare bari ci njàngaleem yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci lu jëm ci wàllu yar rawatina ci li ñuy tuddee éducation sociale nga xamante ne day tax nit ki mën a xam nan lay dundeek ñeneen ñi ak nan lay àndee ak ñeneen ñi ak ku ci nekk itam mu jox la sa àq ji nga xamante ne nii eh, yeyoo nga ko Euh, ci suñ jataay bi weesu waxoon nañ leen lan mooy éducation sociale ak nan la ko lislaam gisee waxoon nañ leen itam importance bi nga xamante ne am na ko ci dundu nit ki waxoon nañ itam euh, ci objectif yi nga xamante ne moom lay viser li tax euh, ñuy yar nit ñi ci yar ci dundin ak ni ñu war a àndee ak ñeneen ñi maanaam yar ngir Euh, mbooloo mi comme niñ leen ko diggee woon nag bu ñu waxee ci euh, yaru euh, lislaam ba noppi dinañ wax itam lu aju ci ki nga xamante ne moo taalif téere bii nga xamante ne moom lañ bëgg a ànd ak yéen di ko jàng te mooy al imam al buxaari rahimahullahu taala ndax mbokk yi jàng jaar-jaaru mag yi rawatina taalifkat yu mag yooyu yooyu ci boppam rek dañ cee mën a jëlee ay leçons yu bëree bari yoo xamante ne ajuna ci wàllu wàllu yar loolu moo tax euh, bala ñuy dugg ci téere bi xam boroom téere bi xam wàccuwaayam euh, ndax ñu mel ne al imam Bukhari rahimahullahu taala ay royteef lañ pour ndaw ñi ay royteef lañ pour ñi ñuy yar ñoo xam ne mën nañ leen a teg ci seen kanam comme modèle pour ñu man di euh, taataane ci ñoom di jàngee ci ñoom Euh, bu fekkente ne jàng nañ seeni euh, jaar-jaar loolu moo tax kon euh, du ñu guddal bu baax ci xamle kan mooy imam Bukhari ndax loolu buñ ko bëggoon mënees na cee def ay émission yu bëree bëri waaye dañuy tudd rek yenn yoo xamante ne nii ay point la ci dundu imam Bukhari ngir ñu mën cee am yoo xamante ne danañ ko ci jàngal kon li ñuy njëkk xamle mooy imaam Buxaari boobu nan la tudd ak lan mooy aw askanam ak yitam eh, fan la dëkk bu dee nu mu tudd mooy abu abdallah muhammad ibnu ismail ibnu ibrahim ibnu almugira ibnu bardisba aljofi albuxaari kon moom bu ñu seetloo dañuy gis ne ma nga dëkk fële ca réew ya nga xamante ne mooy réew ya nekk ca euh, wetu euh, Russie foofu la la dëkk kon moom nekkul woon arab loolu itam jàngat bu am solo lañ ci def mooy ne lislaam bi mu ñëwee clivage yi nga xamante ne wala xëccoo ci wàllu xeet loolu joxu ko yitte li mu jox yitte mooy ne nit ki fa muy àgg ak wàccuwaay ba muy am mérite la boo xamante ne lu muy def la ñu Euh, gis ko euh, waaye du nekk ab judd boo xamante ne moom la judduwaale loolu moo tax kon imam Buxaari yi ak wàccuwaay bu rëy bi mu am yépp euh, nekkul woon ab arab làkku arab daf ko jàng dem ba raw ci ay moroomam dem ba sàmmal ñu li nga xamante ne moom mooy xadis yonente bi sallallahu alayhi wa loolu nag nit ki lim ci war a jàngee mooy ne ak moom famille bu mu mën a jóge ak lu famille boobu nekk famille bu modeste ak lu famille boobu nekk famille boo xamante ne siiwuñu kenn xamu leen teewut moom bu góorgóorloo euh, jéem a def li mu man borom bi subhanahu wa taala jàppale ko boobaa fu ñeneen ñi àgg fu nekk mën na fa àgg kon loolu dañ ci euh, gën a euh, jàngaate ne mbir yi nekkul ci aw askan wala aw sant wala dëkk boo xamante ne fa nga dëkk moo loolu moo lay àggale fi nga xamante ne moom nga war a àgg kon nit kenn du ko xeebe ngir aw askanam wala couleur am wala xeetam waaye itam kenn du ko fonk ngir aw askanam wala xeetam ndax yooya nekkul ci loxoom dafa judd rek euh, fekk na moom ci famille sàngam la juddoo ba muy judd du moom moo taamu ne man ci famille sàngam laa bëgg Euh, juddo kon loola du nekk mérite boo xamante ne dañ ko cay taggee wala mu nekk loo xamante ne dañ ko cay euh, xase kon imam Bukhari ma nga juddee foofee nga xamante ne moom mooy Bukhara di village boo xamante ne euh, fële ca réew yooyu nekkoon ca ancien union soviétique foofu la nekkoon lan lañ koy dàkkantele nak moy imamul muhaddisin wala bok ñu nan ko amirul mu'minin fil hadith manam dal hadith buñ doon wër njit buñ doon wër fekkonte ne amna bour bo xamni dañ koy fal ne ko yow yaay bouru ñi yëngutu ci walu hadith kok imam bukhari lay doon mom moy mbeur mu mag mi nga xamante ne euh mo nek roi des arènes bu fekkonte ne dañ ko mëna waxe nonu ci lu jëm ci walu xam xam-xamu xadiis loolu foofu la ci la ci àggoon te loolu kenn xëccoowu ko ak moom noonu lañ ko daan dàkkentele boroom xam-xam yépp nangul ko raw goo xamante ne raw na ko ñeneen ñépp ci wàllu euh, euh, xadiis imam Bukhari euh, mu ngi juddu ci kër goo xamante ne këru xam-xam la këru mbaax la kërug yiw la itam ci kër gu mel noonu la juddoo maanaam famille bi mu juddoo famille la boo ne bu baax la ñu imam Bukhari mi ngi juddu ci atum téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñeent ci gàddaay gi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, euh, ci bi sallallahu alayhi ci la euh, juddu bi mu juddoo nag dafa juddu nek ab jirim maanaam ci ak ndawam ci la ñàkk waajuram ci ak ndawam ci la ñàkk waajuram loolu nag mbokk yi am na taxawaay itam bu ci war a euh, buñ ci war a seetlu te mooy ne nit ki euh, nekk jirim warta nekk handicap boo xamante ne da koy handicapé ba nga xamante ne fi yeneen xale yi am ay waajur àgg du fa àgg bu ñu gisee euh, jirim ba njëkk ba nga xamante ne mooy royteef moo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ab jirim la woon lu baree bari ci borom xam-xam yi itam Euh, ba ñu euh, ndaw ay jirim lañu woon waaye lislaam ak ni mu jàngalee ak tëralin yi nga xamante ne tëral na ko teg na ba nga xamante ne nit ki euh, xale bi bu ñàkkee waajuram itam société bi ci boppam ñoom ñooy taxaw taxawaay taxaw ko taxawaay ba nga xamante ne moom la ko waajuram doon taxaw ba nga xamante ne sax mën naa gën a raw ay xale yoo xamante ne ñoom seeni waajur ñu ngi doon dund imaam Buxaari yi moom ci ak ndawam la euh, waajuram wu góor génn àdduna kon mu nekk jirim ndax jirim mooy ki nga xamante ne waajuram wu góor génn na àdduna te majeuragul kooku mooy jirim kon bu fekkente ne bi waajuram di génn àdduna fekk na majeur na ko kenn du ko tudde jurum jirim ki nga xamante ne itam yaayam la ñàkk waaye waajuram wu góor euh, mi ngi mi ngi dund kook itam kon kenn du ko tudde jirim kon imam Bukhari jirim la woon waaye kan moo ko yar yaayam moom moo ko moo ko yar loolu aussi mbokk yi ñu jàngewaat ci lu ama am solo te mooy rôle bi nga xamante ne jigéen war na ko mën a ci yar ab doomam même bu fekkente ne euh, baay dundatut imam Bukhari bii euh, yaayam moom ko moo ko yar euh, te yaayam Eh, niñ ko xamee woon mooy soxna su baax la woon soxna su ragal borom bi la woon subhanahu wa taala soxna su bari woon ay lu muy ñaan la ak di tudd yàlla nee nañ itam soxna la soo xamante ne kuñ daan nangu ak ñaanam ndax eh, bokk na ca lañ ca nettali luy wane eh, ak mbaaxam ak ñaan gu muy ñaan borom bi subhanahu wa taala ak nangu gu ñu nangu ay ñaanam mooy ne imam Bukhari bi muy nekk ndaw dafa am feebar bu ko daloon boo xamante ne demoon na ba gisatut dafa silmaxa soxna soosu guddi la daan jóg di julli di ñaan borom bi subhanahu wa taala xool leen bu eh, eh, soxna soosu li mu wutee ak tey sunu eh, soxna yi ak suñu jigéen ñi ñaare bu leen dara dalee ña ngay daw fu nekk maaman bu ne ñu dem seeti ko ku nekk ñu ne leen diw mën na ci nangam ñu dem fa seen xaalis ak seen dooleeg yépp ñu jéxal ko ci ay njiri ay jabar ak jéxal ko ci ay xërëm te loolu ab jullit waru ko def da ko war a sori ñoom ñépp dañoo waroon roy ci yaayi imam Bukhari bi bi lii dalee doomam mu sabablu ci wàllu lu koy faj ci wàllu àdduna waaye itam nag mu diis ko ki nga xamante ne nii ku ko diis say soxla moom rek mooy ki mën a faj soxla yi te mooy borom bi subhanahu wa taala moo tax nee nañ da daan xaar ba guddi ñépp di nelaw mu jóg di julli bu paree tallal ay loxoom ñaan borom bi subhanahu wa yàlla delloosil ko delloosil doomam jooju ab jisam nee nañ génn guddi dafa ñaan ba sonn tëdd nelaw not ko ci la gént gis yonent yàlla ibrahima alayhi salaam mu ne ko yow mii dey xamal ne yàlla delloo na eh, sa doom ja ab jisam nee nañ dafa xëy rek gis imam Bukhari di eh, eh, di gisaat comme na nga xamante ne noonu la nekkee woon dafa mujj sax ab gisam dafa gën a euh, baax moom imam Buxaari ba nga xamante ne nee nañ guddi léeg-léeg daana toog di taalif ay téere te ci weer wi kese lay niitoo ngir euh, leer boo xamante ne ay bëtam euh, leeroon na ko kon kooku mooy yaayi imam Buxaari baayam moom itim kilifa la woon jàngkat la woon jëlee na xam-xam ci imam Malik jëlee na ko ci Hammaad itam Euh, waaye moom dundut ak imam Bukhari lu yàgg lu ëpp ci ab yaram ki nga xamante ne moom mooy euh, yaayam moom moo ko euh, yar imam Bukhari ci jan jamono la doon dund imam Bukhari mi ngi dund ci jamono ñi ñu tuddee abbasidi al abbasiyoon jamono jooju ca la dund dund na ci jamonoy Ma'mun ak Mu'tasim ak Waasiq ak Mutawakkil ak Mustansir ak Musta'in ak Mu'taz Eh, ñoo ñëpp di nekkoon ay xulafa di nekkoon ay buur yu jiite woon ci eh, jamonoy abbasiyoon yi ñoo ñëpp imam Bukhari dund na ak ñoom jamono jooju nag jamonoy abbasid yi surtout jamono ji ci imam Bukhari eh, dund dafa nekk jamono joo xamante ne xam dafa tasaaroo woon fi nga xamante ne moom mooy Bagdad ak yeneeni barab yoo xamante ne ay jàngukaay maanaam jamono jooju xam-xam ak développement ak culture dafa tasaro won xam-xam itam tasaro bu yaato yaato xam-xamu hadith tasaro xam-xamu fiqh itam tasaro ngir yi nga xamantene moy mooy ñeenti ngir yiñ xam bobu fek na ngir yoyu feñ ba am ay borom xam-xam yu ci yo xamantene ku ci nek amna ci ngir yoyu ngir mo xamantene ci nga bokkon waaye itam xam xam l'islam yi rek nekul won ne mom mo yëkkati ko mo développer waye même xam-xam yi nga xamante ne yeneen xeet yi amoon nañ ko sax dugal nañ ko ci biir euh, euh, jullit ñi ci li ñu tuddee traduction jamono jooju traduction dafa tasaaroo woon lool euh, liggéey yi nga xamante ne ci wàllu philosophie la aju woon ci wàllu yeneen civilisation yi la yépp dañ ko traduire dugal ko ci biir li nga xamante ne mooy xam-xam ñi di ko jàng jullit ñi di ko jàng kon daal nekkoon na jamono joo xamante ne xam-xam tasaaroo woon na fa lool njëkk nag euh, euh, li nga xamante ne moom mooy euh, abbasid yi seen jamono ju mujj ji moom mujjoon na dem ba nga xamante ne de néew doole amoon na ci biir jullit ñi waaye itam nag ñu xam ne xam-xam noonu mu jóge woon noonu mu tasaaroo woon àndoon na itam nag ak tasaaroo ay bid ay bidaa ak kuréel yu bare bari yoo xamante ne juddu woon nañ ci euh, biir jullit ñi di tasaare seen pas-pas yooyu nga xamante ne tasaar euh, pas-pas yi bidaa la demoon na ba ñenn ci buur yi kilifa yi demoon ba jeexintalu ci xalaat yi nga xamante ne ñu ñuy tuddee mu'tazila yi indi nañ ko te ñooñu bokk nañ seen xalaat yooyu mooy ne woon alquran lu ñu bind la te ahlu sunna li ñu gëm mooy ne alquran kenn bind ko waxu yàlla la melokaan la ci melokaanu borom bi subhanahu wa taala waaye mutazile ba ñu tasaaree xalaat boobu dem na ba ñenn ci kilifa yi gëm ko te bañ ko gëmee adopté ko dañ caa nekkoon di ca forcer nit ñi ci la ñu fitnaale ay borom xam-xam yu bëree bëri te kë ci jiitu mooy imam ahmad ibnu hanbal rahimahullahu taala fitnaal nañ ko lu bëree bëri ci pas-pas boobu nga xam ne moom la gëmoon naka noonu itam imaam yi bii ñuy tudd tey fitnaal nañ ko ci wax jooju wala pas-pas boobu nga xamante ne moom mooy pas-pasu euh, euh, euh, ne alquran dañ ko bind loolu nag naka jekk mbokk yi jamono ju nekk lu mel noonu dafay am day am ay nit ñoo xamante ne danañ am pas-pas yu bon waaye lañuy jéem mooy fexe ba convaincre ñi nga xamante ne ñooy njiit yi Eh, détourné leen ba ñu ànd ak ñoom ca loola di xeex ñeneen ñi nga xamante ne eh, eh, gëmuñu seen pas-pas boobu wane na leen ñii danger lañ pour yéen wane ne leen ñii danger lañ pour réew mi te fekk na dara wutewu leen lurut mbir la moo xam ne mbirum xalaat la dañ ko waroon a teg ci taabal ñu discuter ko waaye ba ñu xamee ne amuñu ay preuve amuñu ay lay ni ñuy def rek mooy dem làqatu ci ginnaaw nguur ngir mu dóor ñenn ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, euh, population yi kon ci période boobu ci la imam Bukhari euh, doon dund mu nekk période boo xamante ne itam bu jafe woon la imam Bukhari nag lan mooy ay qualité wala lan mooy ay melokaanam itam moo xam melokaan yi aju ci wàllu jikko la wala melokaan yi aju ci wàllu Euh, euh, yaram yaramam ci boppam ni mu ni mu meloon imam Bukhari bu dee ci euh, ni mu meloon physiquement nee nañ dafa nekkoon nit ku yamamaay koo xamante ne njoolut gàttut itam njoolut gàttut itam ba noppi itam couleur am dafa nekkoon couleur boo xamante ne nii weexu tàll waaye itam ñuulut woon kull ñuulut woon kukk Euh, bu dee ci melokaan yi nga xamante ne moo aju ci ay euh, jikkoom nag te loolu moo ci ëpp solo euh, bu ñu xoolee dunduk imam Buxaari yi dañuy gis ne dundam yëpp mi ngi ko def ci xadis yonent bi sallallahu alayhi wa ci jàngale yonent bi sallallahu alayhi wa loolu nag kon dana waral mu am jeexintal ci li nga xamante ne moom mooy jeexintal ci li nga xamante ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale ci ay jikko yu rafet yoo xamante ne nii imaam Buxaari daana ko euh, euh, jëfe bokk na ci ay jikkoom yi nga xamante ne xamee nañ ko ko mooy ragal borom bi subhanahu wa taala ak di ko topp loolu moom lañ ko gënoon a xamee imaam Buxaari ku ku ñu xame woon jaamu yàlla la ku ñu xame woon bëgg lu baax la ku ñu xame woon topp borom bi subhanahu wa taala la ku ñu xame woon moytandiku lépp loo xamante ne nii euh, ay mooy yàlla la ku bari woon lu muy jàng alquran la ku bari woon lu muy jóg guddi di euh, taxaw di naafila la woon moom imam Bukhari bokk na ci jikko yi ñu ko xamee woon itam mooy ku maandu woon ku wóor la woon itam lépp lu mu moomut du ko laal te itam ku dëgg woon la mbir lu mu metti metti rek dëgg ga lay lay wax bokk na ci euh, maandoom mooy ne imam Bukhari ak dëggoo goo xam ne dëggu woon na ko mooy ne daana yëgul ci wàllu commerce loolu aussi dañ ciy jànge ne nit ki mën naa yittewoo xam-xam yittewoo wàllu xadis yittewoo wàllu waaye teewut mu am lu muy kër-këri ngir mën caa am loo xamante ne nii dana ca euh, dundal boppam dundal ca njabootam loolu euh, lu sell la loo xamante ne xamee woon nañ ko boroom xam-xam yépp li ëpp solo rek mooy fexe ba équilibre am ba nga xamante ne wutum àdduna du la fabi ba li nga waroon a jàngale ak li nga waroon a xamle doo ko doo ko am imam Buxaari yi nee nañ benn bis mas naa indi benn marchandise bi ko indee commerçant yi ñëw song ko ba fay ko ca lu mat euh, euh, juróomi junni ci ay diram ci alal ju bari la woon jamono jooja mu ne leen waa dem leen ba ba suba ba xam ma xool ba suba ñëwee am yeneen commerçant yu ko dégg ñëw fay ko lu ko ëpp fay ko double bi na ko ñun fay nañ la euh, euh, fukki junni ci ci euh, lii marchandise mi nga indi imam Bukhari yi ne démb am na ñu ma waxaloon ba pare ñooñu lay jox marchandise bi pare pour perte presque moitié li nga xamante ne mënoon na ko gagné ci marchandise moom waaye comme digoon na aw nit ba pare mu ne leen la ma xasoon ba yéene bëggatuma koo bàyyi kon itam loolu danañ ci jànge ne eh, nit ki eh, ab julit bu fekkee mi ngi ci commerce wala ci business wala lu man di doon war na ci bàyyi xel boroomam war na ci bàyyi xel li nga xam ne moom mooy éthique war na ci bàyyi xel ay jikko warul rek xool lii may ut nii lan laa ci mën a mën a am nan laay def ba dajalee ci lu baree bari même bu fekkee damay nax ay nit même bu fekkee damay triande ay nit même bu fekkee damay sàcc loolu ab julit wër te mel noonu moo tax boroom xam yi daan yëngutuwaale léeg-léeg ci wàllu commerce ak yu mel noonu bokk na ca lañ cee jublu woon mooy jàngalaale nit ñi ne man nga ut xaalis waaye na nga utit ko utin wu dafet utin woo xamante ne wu dagan lay doon bokk na ci lañ ko xame woon itam mooy ku jàmbaare la woon courage daf ko amoon moom imam Bukhari nekkul woon euh, koo xamante ne ku soxar la toog di euh, euh, indi ay problème fu mu toll waaye nag Euh, ku amoon dignité la ku amoon dignité la moom imam Bukhari te itam daawut jublu ñi nga xamante ne ñooy buur yi di dem di leen jéem a jege ngir mën a am ci ñoom alal loolu nag lor na lu bare bari ci borom xam-xami euh, jamono ji ak yeneen jamono yi itam mooy euh, bàyyi li nga jàng ak sa xam-xam dem topp ñoo xamante ne xam nga ne la ñuy woote du loola Eh, ngir rek poñetum àdduna imam Bukhari bi mu nekkee Bukhari di jàngale eh, jamono jooju nit ñi dañ doon ñëw lu bare bare bari ba mu mujj siiw lool fu ci nekk nit ñi di fa ñëw di fa jàngale ki nga xam ne moo nekkoon gouverneur ba jamono jooja di Khalid ibnu Ahmad ad-Dhuhli daal di yónnee ci moom ne ko dama bëgg muy ñëw sama kër di ma jàngal man ak sama njaboot imam Bukhari ne ko déedéet mukk xam-xam dañ koy dékkal waaye du moom mooy dem di fekk ji euh, kenn euh, buur ba ne ko lekk damaa bëgg nga jagleel ma jataay boo xam ne man ak sama famille dong la mu ne ko loolu itam mënta nekk xam-xam pour ñépp la kon loolu kooku yëg na dignité yëg ne fierté am na ñoo xam tey bu leen buur ne woon kaay jàngal si ma boobaa sax mën nañoo bàyyi ñañ doon jàngal ñépp dem ca euh, buur ba ba nopp utal ko lay yu baree bari waaye bu boobaa ña ngay toroxal xam-xam bu boobaa day wane ne yëguñu ñoom li nga xamante ne nii moom la ñu euh, euh, yanu kon euh, loolu itam nag indil na ko ay jafe-jafe yu baree bari ci dundam moom imam Buxaari bañ googu nga xam ne moom la bañaloon buur boobu mbokk yi bokk na ci jikkooy imam Buxaari ba léegi mooy ku daan toroxlu la te itam ànd ak nit ñi àndin bu rafet ku amoon teggin la itam ku amoon kersa la itam loolu lañ ko xame woon euh, bokk na ci liñ ci nettali mooy ne benn bis dañoo toog ci jàkka ji am nit koo xam ne xëy na yaruñu ko nañ ko war a yare euh, mu jékki-jékki rek am lu mu génnee ci euh, sikkimam lu ci takkoon mu jël ko rek sànni ci moketu jàkka ji wala ci tàppi jàkka ji nee nañ imam Bukhari di ko di xool loolu nga xam ne moom la sànni di ko xool di ko xool ba gis ne nit ñu xoolatuñ ko rek mu daal di koy gaaw këf ko denc ko ci poosam ba génn jàkka ji doog ko euh, sànni ngir wan leen euh, yar bi nga xamante ne amoon na ko teggin yi nga xamante ne amoon na ko ak itam ni mu xame woon euh, nan lañ war a dundee ak doomu adama yi yooyu ay mbir la yoo xam ne na cee jànge lu baree bare incha allah taala si ñu jotaay bii di ñëw dinañ àggale lenn ci li nga xamante ne moom mooy jikko yi nga xamante ne imam Bukhari rahimahullahu taala amon nako tay te ñu man ci jàngate lu bare bare bari kon ñu ngi leen di sante di leen gërëm di sante suñu mbokk Bokar jam mi nekkon ci caméra bi di sante itam suñu mbokk Abou Salima mi nekkon ci réalisation bi di leen sant yéen itim yéen ñi nga xamne yéen doon top suñu émission bi di leen jox dig daje ba benen jotaay inshallah taala واخر دعوانا ان الحمد alhamdulillahi rabbil العالمين lakum shukran lakum sunu mag ñu baax yi fi daan yare dinu wan di yoon wuñ de jube